muy xalifa boobu canaba mu dem bay wax benn ay logements sociaux yoo xam ne Macky Sall daf ko ko war a defal mais Macky Sall dane ko fekk njaboot gi ànduñu boo waxee ak ñoom ba juboo dinaa ko mën a def moom mu naan xalifa yi ko jiitu nga xam ne mën nañ juróom-ñeent wala nangam amul kenn ku mas a sant njaboot gi bañal la ba man maa sant ñu bañal ma bu fekkee ne loolooy tax ma waxtaan ak njaboot gi ba ba juboo mooy tax ñu defal ma ko na ko Macky Sall yóbbu bu dee loolu mooy condition yi naan ko kon na ko yóbbu waaye teewut gërëm naa la xam nga loolu dafa doy waar noo ba tax sa njaboot say doomi mag wala say doomi rak wala sa ñi la war a déggal déggalatuñ la parce que dañoo sentir que ne da nga ànd ak koo xam ne cher internautes yéen ñuy topp ci chaîne bi di IYAT ginnaaw bu ñu leen nuyoo comme ni ñu ko daan defee saa su ne ñu duggee ci li nga xam ne rek moo di jeexantalu ay bis bi ñu seet si ki nga xam ne moo di Saa Wolof amal ak moom waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité yi fi jot a ci semaine bi saa nuyu nañu la. maa lay fay di nuyu mboolem mi ñuy seetaan di ñaan yàlla yaatal suñuy dënn leeral suñuy làmmiñ ba lay si wax ñu mën cee jëlee njariñ Euh, saa ginnaaw bu ñu la nuyoo dañuy dugg directement rek ci sujet bi muy gàmmu gi ñu génn gis nañ njiitam réew mi mu demoon euh, fële ca Tiwaawoon naka nga gisee euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofule. bon kàddu yi mu yëkkati bon awma ci lu may parce que moom mi ngi ci logique am bu mu nekkoon nekkoon na ci benn nekk na ci benn parti joxoñ na ba genn candidat ne gii la bëgg ñëpp topp ko parti ba kii na fa dem na di wër. foofu nag moom li mu bëgg la wax léegi nag mu des ñoom liñ ko tont foofu laay amee jàngat mais pas ci kii wu Macky Sall wax dëgg yàlla am kuy dem la koo xam ne amul yéene euh, comme tout comme ñëpp sañoon njabootam koy wutu waaye fas koo jaar ci yoon loolu mooy li nga xam ne moom moo ci rek comme miñ ci logique am moom logique bi mu nekkoon daanaka foofu doy naa yem quoi. aw ma ci euh, beneen jàngat. dina bi mu waxee gis na xalif euh, bi koy tontu dem sax ba woowee Amadou Ba futur président ban gisin nga am ci. Euh, kàddu yi euh, kilifa googule waaw loolu de moo ci euh, doy waar xam nga kilifa moom fii man bañuma kilifa gu far waaye far ba pare jàkkaarloog nit naan ko futur président te nag wax digg yàlla am suñuy wax kilifa diine moo tax ñuy wax te diine ci diine yi kan la yonent yàlla Mamadou te dañoo ne kumpa moom xay suñ borom rek ko xam kon boo ne diw futur président kon day mel ni liñ ci kii liñ li ci nit ñi di eh, jàpp mooy moom nga jàpp ne mooy falu xam nga dafa wax joo xam ne nii bon lay xew ëllëg suñ borom ko xam kon bu nit koo xam ne dañu nekku ko kilifa diine la muy waxee ci noonu day mel ni daal eh, njort wala kumpa daal lay bëgg a wane ne maanaam kenn ku nekk mën ngaa xam ëllëg wala nangam loolu baat bi loolu lay loolu laa ci xaw a gis quoi loolu laa ci ñaawlu waaye kantan far fu ko neex su ko neexee mais est-ce que ni ñu tareexat yi demee Sénégal wala fi mu toll culturellement parlant maanaam fi nga xam ne léegi ñun fa la ñu indi suñu euh, njiitu diine yi maanaam mu doon régulateur social comme ku mel ni Trump bi nga xam ne moom la sëñ Mountakha yor yaakaar naa moom la sëñ Babacar Sy mënoo nekk juge et partie tey man maa ngi euh, doog a xam li tax coow yi fi am yëpp kenn tudd ko ci saa su nekk nit ñi ci sëñ Muntaxa la ñuy dem wala daan dem ci sëñ Maahi Ñas te dematuñ fa nag parce que yaakaar moom nañ waxante dëgg am na jamono fu yaakaar daan am bu syndicat yi dee nangam ak nangam ñuy seeti ñeneen mais boo xasee far day xaw a doy war daal maanaam gem bi daal da nga ciy daal di bokk maanaam nit ñi léegi dañ lay compter ci waa APR te loolu quand mënoon naa ñàkk mënuma fa xuus trop parce que du sama sëriñ bu doon tey Touba lañ ko defee ci laay gën a nekk en l'aise pour wax mais réew ñoo ko bokk rafetlu ma li nga xam ne moo moo fa xew mais ci surtout ci ginnaaw bi bisu gàmm gi ak euh, euh, ministre de l'intérieur taxawaay bi foofu ak tamit mag mi nga xam ne ku mel ni sëñ Baye sëñ sëñ Mansour si Djamil jooyam yi te ma xool sama xel dem ci benn préfet boo xam ne mi ngi jàkkaarloo woon ak moom muy Aline Badara Mbengue nekkoon no pas préfet gouverneur moo nekkoon gouverneur Louga ba nga xamee ne sëñ Mansour si mi ngi doon amal gàmmoom googu muy baayam sëñ Jamil daan am dañ ko fay amal te mu tàmbali di wax préfet bi jékki-jékki xunnu ne maanaam day jóg dem ndax ci wàllu politique la ñuy wax mu ne ko non yow kon waxoo fi waxu politique mu ne ko noo bokkul c'est l'administration kooku noonu la jóge dem buudee ba mu koy yàq lu nekk taxawaati waawoon daal di ne Macky Sall dafa am yu mu bëggoon a def ci Benno Bokk Yaakaar la bokkoon mais day xeex injustice ba looloo tax Macky Sall ne ko kon du ma la compal mu ne ko tibb bu yàllaa ma gënal sab comp tey ñu dem ba Macky Sall di tàggoo wala nangam moom mu ne loolu moo ko jooy la quoi jooy ronqañ yooyu loolu mooy sama problème te même Alioune Badara Mbengue bi jàkkaarloo ak moo tax moom benn instant dañ koy dañ caméra bi daf ko wane moom euh, gouverneur ba woon ca Louga te nekk bu Thiès léegi. Mm-hmm. mu mel ni lu ko jaaxal dana jaaxle parce que ban ban sëñ Mansour lay jàkkaarlool. suñ waxee nag ñu ne nit ñi dañuy wax kilifa diine yi nangam mais fii kenn man gisuma fi ku nekk fii Sénégal di saaga. Mm-hmm. saaga nit ki ak wax nit ki dëgg nag beneen affaire la. Mm-hmm. est-ce que kon dañoo dem ba léegi nit ñi li ñuy wax muy dëgg loolu lañ jàppee saaga wala nangam ak nangam. bon man moom jàpp naa ne nit du gis ci man lu teggi new parce que au moins même bu ma amul ci ñoom wegeel it dinaa ko am ci taalibe yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo jokk ci ñoom ñu baax nekk ci du jeex mais nag dëgg moom réew mi la nit gënut a màgg ba bu intérêt réew mi taxayo moom duma ci wax loolu laa ci gis parce que tarixa yi dafa bokk ci suñu culture maanaam ni nga xamee ne moom la yàlla may Sénégal ñu koy réguler ba fi mu toll nii mais léegi nag boo amee parti pris de même que même ñi ci fare ci opposition bi tamit di ci wax wax ju ëpp wala yu demee noonu noonu lay demee mais waxuma même bu doon da nga far ci pouvoir bi junj doy na war a mi xar mais mënoo waroo joxe lépp ki xam ne moom ngay defal loolu sax bu la xasee am politicien buuse màkk la rey jéeg tey bu la xasee wàññi ci ay nitam ni mu daan sonn ci yow pour courtiser la wala yu demee noonu dukki ak yeneen ak yeneen jataay boobu rek laa mën a wax mais am na yeneen jataay am na jasa euh, jataay bu am canaba am bu am feneen ak feneen <laughs> li am Tiwaawoon gis nañ Cheikh Mahi Niass mu yëkkati ay kàddu mel ni ko koy jëmale ci leader bu Pastef euh, di wax ni moom euh, bu waxee rek dafay faral di wax violence ak yu demee noonu ban gisin nga am ci kàddu yooyu la bon man bokk maag moom gis-gis foofu parce que man Ousmane Sonko mi muy wax man du mi ma xam wax dëgg yàlla am koo xam ne boo waxee violence ngay wax xam nga man Cheikh Mahi wax dëgg yàlla am fii lañ ko daan gis moom moo daan dalal Guy Marius Sagna dalal Ousmane Sonko di ñu ubbi Ousmane maa euh, Mahi mooy ki nga xam ne moom la ndaw ñi que ça soit mooy ki nekk Tidiane wala ki ko nekkul wala yooyu gën a jox bopp parce que doon waxal population bi li leen metti di wax même France surtout muy wax Afrique francophone surtout colonisateur bu mel ni France tey muy dem bay wax ci Ousmane Sonko ba naan France bi nga xam ne mooy kii kenn mënul ko daal di taxaw di wax loolu te loolu bokkul woon ak kàddu yi nga xam ne maanaam dafa mel ni ñaari nit quoi man nag bon xam ku mel ne man ci wàllu nitu diine ci yu bari ah, te du foofu rek de même ay murit ay nitu diine murit fi ma bokk dañuy dañuy def noonu wax dëgg yàlla donte na gisaguma xalif bi mu wax wax yi nga xam ne mooy foofu mais am na ci ñeneen ñoo xam ne danañ wax loolu am na ci koo xam ne dëkkam sax nit faral fa Pastef tax na mu génne ko muy maam Thierno bu euh, daaru mar naan ak yu demee noonu xam nga yooyu yëpp ay affaire ay engagement la yoo xam ne nii pour man nitu diine war na koo jomba def fi ñu toll nii parce que fi ñu leen xaar loolu mooy li nga xam ne kenn xaaru leen foofu te problème bi mooy ñoom yëpp dañuy def allusion que Pastef ay nit yu gëmut tariixa ñoo fay nekk comme di taxé wahhabi di wala nangam déedéet wahhabi di ak ibaadu yi Macky daf cee am nit ci Ousmane Sonko amee te kilifa gi nga xam ne moo jiite tey ñi ñuy wax salafiste yi wala ñu demee noonu bu ci ñi ñuy wax organisation yi bokk ki jàpp ne bu ñu doon wax tey ne benn kilifa moo leen jiite tey muy Ahmed loo pour man li ko Macky Sall dogal ci suuf amul benn kilifa diine bu mu ko dogal fii ci Sénégal surtout ci vilam be euh, bee ngi keneen jam ñaaji lam ko fa daggal kenn xamul lu muy nu mu toll te pour pourtant déggoo sax moom muy wàcc bay wax mooy comme ni ko sëñ Moussa Moustapha si waxee bay wax yenn kàddu yi nga xam ne bu ko waxee nga pare xeeb ko xam nga nga war a nga man koo xeeb dégguñ loolu kon tey problème bi mooy li fi nekk mooy gone yëpp xam nga bu njëkk danga daan gis euh, murid yi dañuy féewaloo ak tijaan yi di ak wala ak yi di nangam ak nangam léegi da ngay gis ne man li may gën a gis mooy gone yi euh, taalibe yi maam murid beeg tiijaan beeg ñëpp ñoom ñoo bokk xam ne li ñu bokk nuñ koo séddoo mais nag politique ñu mën a dajee politique seen politique wala ñu bokk seen équipe wala nangam nangam daal di nangul mag ña léegi nag dafa dem ba mel ni fi nga daan gis maanaam gars yi daan fa taxaw di wax yu wax yu rëy wala nangam dafa mel ni léegi wala wax yoo xam ne daal dana mën a indi xaajul léegi dafa mel ni euh, kilifa yi nga koy parce que koo xam ne yow ñëpp dañ laa bokk nga daal di am koo tànn parce que tamit nañ waxante dëgg borom kër gi ci këram sax am na doomam boo xam ne bu taxawee ne sama doom bi laa euh, bëgg moom rek laa bëgg <laughs> rek xam nga sax dana indi jafe-jafe ma laa koo xam ne ay nit ñoo ñëw kii ci yow te ba ba noppi nag bu fekkoon da koy wax ba pare suñ gestoo dañuy gis euh, kilifa njiitu réew mi defar fa nga dëkk mais dañuy xool dëkk yi ñu dëkk ñoo gën a am lu ñàkk bu dee ndox ñoom ñoo gën a taa lépp fa ñàkk amuñu hôpital yu yu ñu war a am daanaka sax ak yu lu bari loo mën a wax ba pare après yow réalité bi nga xam ne moom la nit ñi di kii gis naa benn kilifa ci euh, yaakaar naa canaba euh, la mu wax ne Macky Sall yaa baax ba wax ne yaa laa yaa mën a teral kilifa diine diine waaw d'accord mais day bëri nañu torox ci njaboot gi wala ci askan wi day te Macky Sall leen ko teg loolu mooy wax ci moo tax it am na moom rek mooy parfaite illustration muy xalifa boobu canaba mu dem bay wax benn ay logements sociaux yoo xam ne Macky Sall daf ko ko war a defal mais Macky Sall dane ko fekk njaboot gi ànduñu boo waxee ak ñoom ba juboo dinaa ko mën a def moom mu naan ki yi ko jiitu nga xam ne mën nañ juróom-ñeent wala nangam amul kenn ku mas a sant njaboot gi bañal la ba man maa sant ñu bañal ma bu fekkee ne loolooy tax ma waxtaan ak njaboot gi ba ba juboo mooy tax ñu defal ma ko na ko Macky Sall yóbbu bu dee loolu mooy condition yi naan ko kon nan ko yóbbu waaye teewut gërëm naa la xam nga loolu dafa doy waar noo mel ba tax sa njaboot say doomi mag wala say doomi rak wala sa ñii la war a déggal déggalatuñ la parce que dañoo sentir que ne da nga ànd ak koo xam ne xaj na gisuñ seen bopp foofu wala nangam ba maam kooku mooy parfaite illustration kilifa yi bu ñu xoolaatut seen taxawaay xam ne dañ leen a sàmmloo ndono lañ leen jox pusoo la waruñ koo mujjee mu réer maanaam tey muy sëñ tuubaa muy maam Maodo muy Baye Niass wala nangam dafa am lekk buñ fi indi lekk boobu li tax ñëpp jàpp ci ba doonoon benn di leen déggal wala nangam ak nangam buñ xasee commencé ñu di leen gis defe ne dañuy parparloo mais ña nga faralut sañ dañ laa boycotté man tey bu ma nekkoon parti politique tey euh, Tiwaawoon feek euh, xalif bi bee mi ngi fay nekk man du ma fa dem di ko dagaan wala may jublu ci occasion di di di ko laaj dara ci wàllu nit euh, dagaan baat wala nag du ma fa jaar parce que xañ nga ma ba pare ci loolu sax euh, dégg nañ si Moustapha Sy di ci wax di wax ni euh, euh, am na ku ñëw ni ko dafay seeti xalifa Thiénaba ak bu Tiwaawoon mu ne ko mën nga seeti bu Thiénaba waaye bu moom bu fa dem ndax nee na Amadou Ba mooy gañe ban gis nga kii la maanaam wax la mooy li ma wax nii loolu la répété waat rek beneen bi nag muy moom wax dëgg yàlla am xam nga man ci moom laa gàmmoo. Hmm. Cheikh Bara Ndiaye moom a invité bëggoon ma gunge ko ànd moom ci sëñ Moustapha. ma dem nag wax dëgg yàlla am gan moom kenn mënu koo tee nettali eh, am na yuñ mënul te tere gan muy nettali fekk naa fa mbooloo mu bari mu lotaabe wu mooy mu organiser fekk naa it la nga xam ne moom la Macky Sall mën a tabaxal nit ñi muy ay maison des hôtes maanaam defar leen ay këri gan wala ay mbaar wala nangam nangam fekk naa mu tabax kër goo xam ne daanaka këram gi résidence bi yaatu na lool waaye ber na fa fu gan yi di nekk mooy gis mooy gis naa fa 42 suites ak i chambre maanaam yanj na euh, am lépp salon boo xam ne fi nit ñi di defee buffet bi doon mbooloo moo xam ne organisation ba fa nekk ma laajte ñi yore service bi maa ngi leen laaj ba naan yéen fu ngeen nekk pour wane ne ankaaw bu ko kenn bëgg ñu ne déet ñun ci daara ji lañ nekk nga xam ne ku la ci may bu dee jigéen ñi koo ci waxal sax wala nga laaj ko service day yegg si ba ci yow sukk ku ñëw day nuyoo sukk gis naa fa yar boo xam ne bu mu yar njabootam tabarkàlla macha allah organisation mais bu ñu duggee ci discours bi bari na yu ma àndut ak moom moom moom sëñ bi muy ci kaaw parce que man doon naa xaar te am na lum ñu dig ci guddi gi parce que am na fu mu waxee ba ne am na benn waay bu sant ja Aliou la tudd yaakaar naa Aliou ja mi ngi Nations Unies la nekkoon moom moo ko wool moo tax mu ñëw nee na kooku sax Nations Unies da koy yabal ci ONU da koy yabal ci ay dëkk yenn Afrique bi mu leen di joyanti maanaam di leen redresser xaj na yu demee noonu. Mm. nee na moo ko indi te nee na bu subaa ñu wax li tax maanaam mu wol ko man nag booba laa a wax boobu maa ngi am ku may day ma naan ko ah, kii muy wax day xam naa jàpp naa mooy doon candidat pur. mais par contre maa ngi xalaat ne waaw mais ku ñu yàgg wan mu yaru tey loolu bari xam-xam euh, euh, nu mu tuddee présidentiable muy Cheikh Youm seex Tidiane Youm ah nu ñuy defak moom ah waaye ñoom day xam naa ne ñu kii lañ ñu ràbbaloo lañ daal ci seen biir ma toog di xaar <laughs> ca suba ga beneen bi nag mooy comme li mu yàq xalif bi ak yooyu pour man daal lu nit ñëpp xam xam nga moom daf ñu daan wax li nit ñi xamul mu di ñu impressionné nit ñi di nagam nag mais pour man li nga xam ne nit ñëpp dañ ko xam daal su ma doon moom jamono boobu doonu ma ko woon sax wax damay bàyyi doon mu jàll parce que déjà nit ñi comprendre nañ te dañ koy wax xam nga ñu ku ñu demee ba ñeme si lu bari wax dëgg yàlla man mën naa ne euh, depuis ay at mën naa ne foofu laay gàmmoo su ma daan foofu laay gàmmoo mooy fii ma dëkk nii daawuma ko génn yaakaar naa ñaari yoon laa ko mas a génn budul loolu damay toog bisu gàmm man yor sama kurus jàpp ba sell di saabal yonant bi sallallahu alayhi salaam di jéggalu ba euh, kii bi commencé sans de course commencé mooy ci jamonoy maam Seex euh, sëñ Almaktum ma jàkkaarloog moom di déglu xam-xam bi ginnaaw bu subaa it ma xëy nekkal ko ci jàpp ci sëñ Moustapha muy wax ma di ba ni maam Seex demee may déglu sëñ Moustapha kon man yàgg naa ne ren laay doog a dem gàmmu jëfa physiquement <laughs> mais falaa daan gàmmoo man loolu la mel ci moom muy moom ak siidi Lamine ak yooyu ñun bokk nañ ci ñi tax ñun ñuy euh, wax wala bokk nañ ci li nga xam ne ñoo ñuy indirectement ah, ñoo ñuy formé wala yooyu moo tax man démb euh, keroog gàmm gisuma woon lool beneen bi mooy ci suba gi am na lu mu wax ci Ousmane Sonko man loolu tamit xaw ma jaaxal parce que loolu day mel ni genre saboté quoi euh, coalition bi mu ne ñoom buñ semee seeti Ousmane Sonko. dafa voilà daano daano lu crise loolu mooy day tappale te man ustaas mi ma xam Ousmane mi ma xam du tappalekat Ousmane mi ma mi ma xam du nekk di yërëmtalu pour ni ji di ko yërëm Ousmane Sonko mi ma xam wuute wuute ak Abdoulaye Wade ma ma xamoon ci résistance bu gënute résister ak Abdoulaye Wade sax moomu Ousmane laa xam kon man Ousmane mi ma wax xaw ma ko beneen bi mooy da nga ciy mën a sous-entendre peut-être que ne am na pexe yu mën a demee ba gis ko waa euh, waaw loolu daf may jaaxal bo xanaa mu dem xañ na taalibe mi mu am ci l'armée walla ci docteur yi wala nàngam nangam ñooñu ubbil ko wala bokk mu wax ko ko waaw yoo mais yooyu yëpp man li ma ci gis mooy yëkkati sa bopp suufeel kooku loolu moo ci nekk te man loolu euh, bëgguma ko parce que Macky Sall noonu la xawam def ak Amadou Ba mooy bu muy dem bay tànn am dana moo ci tane man kon ndegam li Macky Sall di def ma koy ŋàññi nag mag ji jotewu ma ak moom dara daa am way jur ni ma ko amee ami njaboot ni ma ko amee sëñ Moustapha it xaj na dafa gën a am responsabilité mais it bu defee lu ma àndut it man moom ci àdduna damay taxaw ne ànduma ci bu ko keneen defoon ku ma gën a jege it noonu laa koy waxe foofu apprécié wu ma daal li mu wax pas tout wax dëgg yàlla benn muy ci ni mu ne moom la seetee ba ne ba ko yeewi askan wi tegaatee beneen bi mooy Ousmane bon man naa Ousmane moom Ousmane de xaj na dana ko soxla ndax Ousmane ku but mbooloo la benn nit sax du ko xayab moom it mën na koo bañ a soxla waaye Ousmane ku ko soxla wut ren it mën naa am nga soxla ko ëllëg loolu it mën naa nekk waaye daal nit ki faalewu ma kenn moom boo ko defee yëkkati loxo bi yëkkatil beneen bi ne kenn faalewu ma parce que lépp it mbooloo moo la koy def te mbooloo moomu dañoo jóge ci ay kër bari na ci ñoo xam ne kiiwoo leen kon man nit ñëpp soxla ñëpp man moo tax man ci foofu damay wax ne daal wax dëgg yàlla am te jàpp naa ne it mu jàpp ne moo ëpp Sonko mbooloo bu dee politique nag Ousmane Sonko ëpp mbooloo ci Sénégal nag wax dëgg waaw ci kaw loolu sax euh, dégg nañ sëñ Moustapha Sy moom mu wax ne am na ñu ngi doon préparé ñoo xam ne ñu ngi bëggoon a ñëw pour jàpp ko euh, waaye fekk na ko mu préparé boppam yow ndaka nga déggee woon wax jooju nga xam ne waxoon na ko. bon loolu loolu loolu mën na nekk man mën na nekk mais gisuma luy war a tax loolu am. mais loolu moom mënuma ko vérifier wax dëgg yàlla am te jàpp naa ne it ku ñuy fexeel la xam nga gars yi moom comme bàyyiwuñu kenn te ku leen déranger ñu fexeel ko loolu mën naa mën naa nekk mais ndax par exemple bu doon tey ay soldats yuy jël si xanaa bon bu ñu demoo bay jël si nit nombre de personnes bi na rafaatu mais fii man ko fi état euh, bëgg a teg loxo mën na ko <laughs> bu ko defee ba pare loolu la ciy fekk pour man téye ko ba pare après lu la ciy fekk loolu mooy problème ak boo koy téye loolu mais ku état mënut a teg loxo gisuma ko parce que <laughs> moom sax yaakaar naa état teg na ko loxo wax dëgg yàlla euh, état teg na ko loxo jàppoon na ko xaj na nag léegi la mbooloo mi ëpp léegi la euh, kii bi ëpp ak après nu muy demee mais gisuma man lu mu war a mën a am lan teeg état quoi ba ba mu mën a demee noonu mais man jàpp naa ne gars yi ngi koy infiltre ñu ngi koy teg bët ñu ngi koy nangam buñ sañoon man koo fexe. ci kaw discours am bi dégg nañ ko moom mu wax ne am na ñoo xam ne ay infiltré lañ ñoo xam ne fekk nañ ko ci euh, wala nga xam ne moom moo ngi koy def muy gàmmoom googu naka nga déggee wax jooju nga xam ne wax na ko. moom kaay mu wax la. fépp fu mbooloo nekk. moom nag ci ni mu ko waxee dafa mel ni daf ko jiiñ kilifa gi Serigne Mbaye Sy Mansour moom la ko jiiñ. bon mais mais mais li état am yooyu sax maanaam Serigne Sy war nañ koo am. parce que sa <laughs> fi nga jàkkaarloo ne mooy sa wujj wala ma nangam boo fa manee am ku la inf man moom gëm naak ko bu am naag bu dee amul mais damaa gëm ne loolu lu mën a nekk la voilà parce que ni réew mi doxee la quoi. ginnaaw bi nga déglu discours Serigne Moustapha Sy bi dégg nañ ko mu wax ne ba jëm ci jumaay waawoon ji wax ne li nga xam ne moo ko teree noppi war na toll ci onze milliards yoo xam ne euh, daanaka ay naxaate mi ngi ci nañu wax nit ñi li nga xam ne moom mooy li li fi am. day wax ne gàmm gi politique moo ci lalu. bon man nag xam nga ci affaire bu xasee ba dugg ci affaire famille moom man réew mi laay gën a tal beneen bi mooy en général man jullit yi Sénégal ci boppam ak gàmm mooy sama problème que ça soit mooy ñi ci nekk ibaadu wala ñi ci nekk murit wala maanaam chaque année. même scénario moo fi am ñii taxaw naan biddaa la yow loo xam ne yaa ngi koy wax saa su nekk ñeneen di ko wax saa nekk nit ñi di fenqante af dafa il est temps daal ku nekk respecté sa bopp suñ ñëwatee ñu gàmm wax yonent bi salallaahu alayhi wa salaam moo tax li ngay gis léegi da ngay gis màggal xool gàmm gi kan moo fa gën a à part sëñ Moustapha Sy kan moo gën a populaire euh, Tiwaawan Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye lan nga fa gis ay nit ñuy sinap ay nangam ak nangam Modou Fall de laa fa gis mu yëkkati fa di wax ci Sidi Aj Malik wala nangam nangam yi demeen moom am na keneen ku ma fa gis na mu ubbee alxuraan mais li nga fay gis yëpp léegi solu nangam deuxième daam nangam wala nangam yooyu caaxaan loolu rek nga fay gis quoi dootoo gis jeexitu gàmm gi te man dama jàpp ne nit ñëpp dañu waroon a nekk taalibe quoi ak loo mën a yor parce que gis nañ fi ay nit yu yàgg euh, càpp loolu léegi la xew quoi ñu naan màggal see nangam nangam kër nangam bu njëkk maanaam kër sëñ bi wala sëñ bi rek moo daan doon star ak loo yor lu millions yi bari bari da nga koy boole dem sa kër sëriñ jox ko pare daal di ne nemm taxaw taxawaayu taali bi mais léegi bu demee ba affaire yi jëm ci folklore mu doon xaalis wala nangam nangam loolu ñoom ñi ngi toog ci garab di ko di ko di ko di ko di ko gor loolu mooy dëgg man moo tax ci côté boobu tamit ma naw sëñ Moustapha Sy maanaam ordre bi ci moom ak loo mën a wax tey euh, tey sëñ Moustapha Sy lu taalibeem omle omle ah da fa daje keroog boo fa taxawee rek nga xam ne fii ay ndaanaan rek a fi nekk da lay wóor ne am na fa ñu ëppale Aziz Ndiaye fuuf mais dañ ne dégg doon ay taalibi continuer man gis naa ko fa mais tey buñ demee ba mbir mi dog dogub tënk li nga fi gis Touba noonu lañ fa commencé def yoo xam ne daawu fa am xam nga see diw see nangam nangam diw am na ci sama xarit boo xam boo masaana yor statut ginnaaw màggal man ci laa xamee ne kër soxna diw ndekete waykat yi danañ fa mel nii wala nangam nangam ci statut snap bu ma daan seetaan damaa damaa tiit jàppoon naa ne te pourtant man Touba laa la la la màggee xale bu ndaw ba toll ni may toll maanaam folklore bi dañ ko war a génne ci mbir mi li nga xam ne moo ci yàllay kese parce que loolu moo leen fal su demee ba yegg ci folklore nag ñi nga xam ne ñooy sama maas gi dañuy daal di am fulla dañuy daal di jël Bàmba képp teg ko seen loxo seen seen kanam ak ñi ñu xamoon ca mag ña ñii fi nekkaat tey war a nekk intermédiaire di jot àddiya ma lànk bu liggéey bu melee Touba ca kanam wala yeneen ak yeneen ma joxe ko fa mu dem ci population bi wala ma def ko ci bàyyi ba jumaa ji di liggéey mu war ma ne lii la ma dem def ko fa mais dem di xemma ma joxe nangam day dem ba loolu day jeex te pourtant lii ni mu demee dafay loo xam ne day mel ni ordre social la quoi maanaam loo xam ne dafa bokk ci suñu culture moo ñu jik quoi le fait ñu ami kilifa ak yu demee noonu dafa bari lu avantage yu mu am mais avantage yi mu am ñoom ñi ngi fexe mu commencé di yàqu war nañoo xoolaat seen xel daal jëlaat gàmmu teg ko fañ ko nekk parce que nag gàmmu kaay mu wax la folklore la woon au début maanaam bu njëkk suñ maam yi ñoo ko daan def daan ci daje ñu dema dem ba mu mujj nekk pëcc xoo ak folklore di ci naan ak yu demee noonu maam El Hadj ñëw kon foofu nga xamee lislaam daf fi daf fi yàgg gëm-gëm daf fi yàgg maanaam lu baax la woon lu ñu daan def dem ba mu yàgg folklore doggu ci folklore boobu bi mu ci duggee nag ci la maam As Malick ñëw 1902 ba léegi am na gàmm yi am fii ci kawoon gis nga nañ koy defee loolu demoon na ba noonu lay mel xam nga wala lu ko raw sax di am mais maam As Malick ñëw defaat ko ba mu tegaat nit ñi di ko gàmm nii Touba su maam maam maam As Malick 1902 la def 1903 sëñ Touba mi ngi digal maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim moom altine bu jot lay gàmm maanaam daanaka boo doon xool tey moom nombre de gàmm yu mu moom altine bu jot la koy def gàmm gi ñëw mu gën a dàbbali tey loolu yëpp ñuy nga xam ne moom la ñuy def saasu gàmm mi ngi bëgg a réer mu ngi bëgg a dugaat ci taaxuraan mu ngi bëgg dugaat ci mais mbir yi tamit euh, li ñuy wax naan gàmmam googu moom sëñ Moustapha si dafa xaw a niroog euh, meeting parce que dégg nañu wax ji nga xam ne wax nañ ko fa ci euh, El Hadj Mansour Mbaye ak Futurs Médias TFM ak euh, yeneen yi nga xam ne euh, ministre Amadou Ba aussi. waa mais mais bu dee bu mitin kay république la def fee moo gën a doon mitin foofu Mansour mbay ñëw Antoine taxaw di gàmm gàmm gi Antoine man maa ngi ko gis pour man waa non diine la doon wax maa ngi ko gis mi ngi def bi ñuy def CRD mu jóg di gàmm gàmm gi maanaam keroog CRD bu dafa mel ni Antoine moo fa gën a jekku sax mbir mi ñoom ñu dugg ak yu demee noonu ci loolu mais république république la tontu la. ci li nga xam ne mooy la fa am fe te moom tamit bul fàtte ne parti la yor piir la yore te parti bu mu yore tamit nekkul ci folklore de wax dëgg yàlla te ñële nag liñ doon saa yu ñuy gis seeni mitin nag yu demee noonu folklore képp moo ciy nekk gàmm gi daal war nañ ko delluwaat ci sens bi mu nekkoon man nag politique defu ma ko caaxaan mitin même nit ki da cee war de wax farata mitin mais ni ñuy gisee politique bu senegal politique bi nekk folklore nekk yàq xaalis wala nangam nangam gàmm yi ak màggal yi dañoo commencé jël tournure yooyu te loolu baaxul. li nga xam ne dégg nañ ko mu wax ko mu wax ne sengoor Serigne Cheikh Tidiane Sy Al moom moo ko fi xeex ba jëlee ko fi moom moo fi jëlee ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf Abdoulaye Wade intermédiaire la woon euh, moom Macky Sall lay bàyyee capitaine naka nga déggee waxam jooju nga xam ne wax na ko tamit euh, ban jàngat nga si def. déedéet noonu dañ koy jàngat rek man gisuma Senghor xaj na bi sëñ Cheikh moom gañe na ko fi ay élection pas sax présidentielle o nangam yooyu ci mooy seen élection yi njëkk yi daan am ñu ne dafa sàcc Senghor dafa sàcc mais à part boobu Senghor dafa toog ba bu dee Abdou Diouf wax dëgg yàlla bon sëñ Moustapha nag moom ku taxawoon la ci ci xeex bi en surtout 93 biñ ko jàppee foofu it ab defalante la parce que Abdoulaye Wade tamit taxawul seetaan bi ñu jàppee sëñ Moustapha dafa dëggal boppam porté combat bi ci l'international libéral moom député moo di si lañ jàppandoo woon joxe ci mais Moussi di tamit taxaw walte guérilla bu am solo loolu bokk na ci li tax Abdou juuf faible bu dee loolu lay tuddee loolu it d'accord na wax dëgg yàlla mais bu dee sengor daa toog ba ba ba doyal jox Abdou Diouf voilà loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am. parrainage bi commencé na ñu gis ne ñu ci bari ñu ngi dem foofule nga xam ne mooy DG ñu jox leen seen fichier waaye ki nga xam ne moom moo di Pastef ñoom dañ leen ko bañal naka nga gisee tamit loolu nga xam ne am parce que fiche yow mii bu la neexoon yebal ma bu ma demee ne euh, Matar laay porté candidature Matar deux mille vingt quatre dañ may jox bu leen wóoree ne man mii fi teew. man maa yaa ma ak ki nga xam ne tey mooy coordonnateur parrainage bi carte d'identité ak yooyu la ñuy laaj amul benn machine booy dugg wala laa c'est manuel loolu bi ñu ko defee yi fi tappare lañ def te loolu dafa dañoo gën a wane fi ñu jëm peut-être que dañuy préparer conseil constitutionnel en cas pour bu ñu yóbbee candidature Ousmane ko ñu man ko neenal pour ñu bëgg ko mais loolu c'est peine perdue dama jàpp ne conseil constitutionnel constitution la war a topp lu mu laaj te constitution bi wax dëgg yàlla am Ousmane Sonko wàccoon ak moom kenn mënut a gàntalu la waxam maanaam candidature am dafa éligible te moo gën a éligible sax parce que moo ëpp mbooloo kon bëgg koo bañ ci tappale lu mu soxla recours képp maanaam notification amul acte boo ñu wan ne lii notifié nga ko kër ne da nga ko raje ci liste électorale mu des kan moo war a raje ci électro électoral du du du du l' administration l' administratif l' administration lenn képp la am ci élection muy mbind bi képp la am ak comme lii ñu defaat ay faux parrainage nga dem kii ko ak tamit jour élection nga génne matériel électoral bi mais su fekkee ne da ngay valider sa candidature conseil constitutionnel moo koy valider sooy def appel cour d' appel lépp justice la booy waat sax cour euh, conseil constitutionnel mooy taxaw nga waat kon loolu c'est sacré du Macky Sall wala bëgg-bëggam wala bëgg-bëgg yu mu def fii ñii ko defal lii tey def nañ lu dul yoon jaare nañ ko fu dul yoon te loolu na woo nit ñi ñu pare jël seen responsabilité ci lii parce que un un acte manifestement illégal non taxawaayu Pastef njëkk parce que bu dee Pastef maanaam Ousmane Sonko am nay avocat ñoom ñu ngi ci taxaw bu dee opposition bi mais dañ ko war a taxaw xeex li buñ demee ba ti sama programme man plan bi nga xam ne moom laa tegoon muy plan de l'opposition mba <laughs> léegi maa ngi ci te heureusement sax kenn ci euh, ki ma nga xam ne moom laa waxoon ne moo gën a jekk ci plan bi muy Guy Marius mbokk na ci cinq yi nga xam ne déposé nañ kon weesu gut opposition nañu àndandoo tey def ma euh, def gii Marius Sagna mu nekk plan de l'opposition élection présidentielle ñoom ñu jàpp ne candidat la président de transition pour un an mu di reseel ñu Sénégal deux mille vingt cinq pile mu organiser élection ñi bëgg a bokk ñëpp bokk sans jaay doole. ñi ngi la dégg démb ngay wax li nga xam ne moom mooy euh, avocat Ousmane Sonko koy taxawu gi ñuy taxawu dossier bi euh, ñu dégg tamit ay euh, Cheikh Yérim Seck ci fan yi mu wax ne. avocat Ousmane Sonko yi dañu liggéeyul tamit dañuy politiquer dossier bi. day kàcc waxul dëgg. parce que problème mu avocat Ousmane Sonko kan nga ci dégg muy taxaw di wax waxu politique wala muy dem ci plateau yi ñoom bala ñoo def sax benn jàkkaarloo dañuy dem laaj baral bi ba jox leen. bokku ñoo sax eh, bu dee avocat état bi sax mbiram la ñu def conférence wala nangam da leen a dégg maanaam moom day wax ba pare yeew boppam day kàcc loolu mooy li nga xam ne moo nekk dëgg te man problème bi mooy lii ma. parce que ñet nga doon dégg ñu naan la Ousmane Sonko du bokk wala nangam dama seeq ak Aliou Sow benn débat ndumbelaan jamono yi mu ne Ousmane du bokk ma ne ko foo ko teg mu ne waaye xam naa ne problème te da leen dégg ñuy jaayam xel mel ni dañoo dem xam lu ñëwagul maa ngi ko dégg mu naan pam pam gañ respecté ma pour wane ne dafa def ay investigation du dëgg dafa fekk fa ñuy décider xam lépp mook charlatan yi taxaw di fen naan mën na faj nangam ak nangam wala lii ngi ñëw lii ay waaj xew wala nangam fenn rek la ñuy def dañ leen day dëy affaire bi soit ñuy ay complice wala ñuy ay ido utile sëriñ si nag laa mais bu dee Cheikh Yérim complice la lool mooy li nga xam ne mooy dëgg amul dara lu bees lu mu xam gaayee ko xamal mu ñëw taxaw te anticiper loo xam ne ñu ngi ko programmé foofu la may mun a fay jaar fala Aliou jaar benn clip nag moo ñi nga xam ne tey dañoo nekk ay journaliste wayaa euh, wayaa nekk fii nga xam ne maxar yëpp la ñuy nekk ak ñi nga xam ne ñooy politiciens yi nga xam ne transhumé la ñu de <coughs> waa système bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk sëriñ te nekkuñ ci li nga xam ne mooy war mooy na El Malick Ndiaye waxoon rek comme dajaloo nañ ba waneen fi ñu fare suy bale rek. émission bi mu ngi bëgg a jeex li ñu desal ci temps bariwul euh, li nga xam ne moom la ñuy tàggoo rek wala sax dama naan la ban message nga am pour ndaw ñi. bon message ndaw ñi surtout waa Pastef wax nañ leen ne lu ëpp cinq personnes. jël nañ seen fiche de parrainage ça ne diir pas dire que ñëpp ñooy parrainé ñoom nañu taxaw déglu seen parti ndax parti bi dafa leen di wax ni El Malick Ndiaye ak Saa Wolof wala euh, Matar wala keneen ak keneen ñi ngeen di parrainé dondoo bu ñu gaawee loolu fekk parti bi defu ko officiellement bu ñu gaaw gaawtu nañu déglu parce que Ousmane Sonko am na 10 jours pour lijjanti lii kon lii wóor te woor mooy da nga gis waa APR dem pare na ji wala ñeneen ak ñeneen te waa PASTEF duñ ko defagul fii ay fukki fan ñaar yooyu loolu nañ ko bàyyi xel te li ñuy def xeexu xel la ci lañ toll xam nga dafa am lu waaj a waxoon ne Youssou Ndour ne na nga bàyyi ba génnee ko jot te bul ko génnee ba mu jeex ma ngay wax ci waxu mbëggeel waaye ba tey suñu bëggu senegal la parce que sàcc ba dul raw moom jar yàq nelaw. tournir ba ñu ngi leen fay xaar nañu xaar ba ñu def recours ba taxaw ak lan la ci sistis di am parce que lu dul yoon moom buñ ko defee nit ñi dañoo war a taxaw gàllankoor pexe mu ak nuñ ko gàllankoore parce que loolu mooy wàcce constitution bi constitution bi moom lépp lu mu wax nit ñi dañoo war a xeex pour ñu respecter ko su Ousmane ko defoon nag wala ñu teg ko fu leer foo xam ne nii moo tooñ ba nit ñëpp xam ko kenn du ko topp nañu bàyyi réew mii nga xam ne moom la ñuy foowee te gis nga lii commencé am kilifa diine yi la nit ñi wekk ñoom la nit ñi di estati ba nëga ni yaa ngi gis te xam nga li ci neex mooy dañuy taxaw naan day saaga ak day nàngam la boo demee ba weddi wala wax dëgg tax nga taxaw ne dañuy saaga seen maam yi dañ fee fekkoon ay mag yu jiite woon te nañu jiite woon ànduñ ci ñu taxaw wax te nit ñi dañoo xam ne ñoo nekk ci dëgg ñu ànd ak ñoom dëgg googu la ñuy ànd accompagner ci nit ñi mais bu ñu demee bay joxe sentiment wu à ce que dañoo bëgg a nekk ci ay tappale nit ñi gis am per njort loolu ma am perception boobu nit ñi dañ gis nga ko da ngay taxaw wax dëkk ba nga dëkk nit ñi di fa wax sonko wala nangam am na ci ñoo xam ne sax du sonko lañ bëgg wala nangam nangam mais li ñu fi am ñu commencé koo gis te du yoon moo tax ñu jël sonko def ko arme maanaam def ko seen yat bu ñuy sukkootoo tey loolu ñuy def nag am na ci ñoo xam ne moo leen yóbbu ci bëgg Sonko am na ñoo xam ne ñu ngi ko koo xam ne ñu ngi ko tëj ci kaso bi mu sonn fi mu génnee la ne léegi li des ci dundam moom Sonko la koy liggéeyal mooy dongo daara boobu nañu nite xam ne réew mi ñoo ko bokk man nag dama di euh, koo xam ne mbatiitum réew mi su may wax mbatit mooy culture soo waxee culture bi wax nga diine wax lépp di nekk ci biiram moom moo ma ñor ñi Sénégal di doxe man damay koo xam ne sëriñ laa bëgg di am bokk maak ñi nga am na sax ñoo xam ne sax ñi ngi doon xaddi am na koo xam ne sax génnoon na ci diine neena moom waxal boppam te nee na mu maa ko indiwaat kon waxal loolu suñuy kàddu lañu am te nu mu gën a rafete nag luy lu ñuy dénoncé danañ ko dénoncé fu ñu mën a jaar ba rafetal ko danañ ko rafetal mais nag liy dëgg moom faaw ñu génne ko suñ demee nag ba dara sa su fi lu may benn baat bi képp moo fi am tey bu doon ko fen tey nga xam ne mën naa wax ne daa daa daa juum wala daa nangam yooyu yëpp dañ fi nga xam ne amatuma du loolu ci baat bi laay jaar ak koo mën a doon nag bu fekkee ne dañ may rey ñu ray ma ci dëgg loolu mooy dëgg mais réew mi moom danañ fi toog di waxante dëgg soxlawu ma saaga parce que man saago affaire arme ku feebul laa ko def ay saago ay jëw ak ay xas ak ay rambaaj yooyu loolu la man bu may far kenn bu fekkee far far rek kenn laa ko defal mooy sëñ Touba du ma par parloo nag xam nga far aayut dafa am parparloo moo yées te moom la ñu bari di def ak far ak féeti man sëñ Touba dong laa faral féeti nag dama ko def ak Ousmane Sonko defoon naa ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye na ñëpp noppalu te bari naa ciy morom ñoo xam ne ni man lañu mel fi ñu xas nekk ci diine foofu la ñu far doonte nag bu ñu fa gisee lu dul yoon dañ koy dénoncer waaye féete moom man ci politique Ousmane Sonko laa ko defal ñeneen ñëpp nag respecté naa leen. voilà bëñ bi moom moo ma xaw a sonal moo tax tey nekkuma nekkuma à l'aise damaa jógee Tiwaawoon euh, gàmmu ji woon waaw maa ngi wax nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom lañu ñu sëñ Moustapha si booleeloon ñu doon ñu toppatoo na benn ku ma ci tiwaay waay tur wi nu mu nu mu tuddati waay Sadia. ku baax soxna su baax wax dëgg yàlla mën a maye café ñoom ñëpp wax dëgg yàlla surtout ci accueil bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, maison bi foofu nga xam ne boo duggee day mel ni hôtel rek ngay dugg dem ci réception bi ñu teg la xool sa chambre nit ñi sax ay ay badge ay ay bracelet lañ leen doon takkal pour nga xam ne yaa jóge chambre bi tarkal la kooku daal xam naa ne moom <laughs> bu kër kilifa diine yëpp melee ni moom ci wàllu moyen laa wax de li mu def ci euh, këru diine parce que loolu am na ci loo xam bu la ko nguur defalee da lay yab loolu mooy dëgg dafa am loo xam ne gis nga ku bëgg ñu weg la sooy laaj laajal ay tali comme ni ko sëñ Saliou doon waxee ne Abdoulaye Wade du ma la bi ko mu ne ko du ma la sant lu du loo xam ne nguur da ko warlul dëkk muy tali am ndox courant bu ñuy niitoo wala yu demee noonu mais ay mbaar ay maison de zot ay nangam ak ay juma non nguur waru koo tabaxal benn këru diine moo tax man sañ Moustapha si wax dëgg yàlla ci côté boobu gan moom kenn mënu koo tee nettal gis nga li ma fi wax lu daa lu ma d'accordut wax naa ko waaye ci yar bi nga xam ne moom la Moustar si di am dem naa benn instant sax ma naan man teema transhumé may tooñ daal ne pour transformer wu nekk Moustar Sy moom daf may yomb ndax ab ceddo laa bon mais tooñ la rek mais <laughs> man taalibe bambalaa waaye wax dëgg yàlla am euh, Moustar di naw naa leen ci yar bi te da nga ciy gis koo xam ne ah si day jàng ba nga jàpp ne tubaab bu ñuul la laax te buy lay nuyu day sukk maanaam yar bi nga xam ne moom lañu xam ci suñu culture lii daal gis naa ako cet cet li mbooloo mi bari bari bari lu nit pare eh, yaa ngi ko teg nale ak dal gi loolu dama ko gis ci ñoom yiw surtout nite ndax mbooloo mu bari noonu fi ñuy nekkee ak surtout euh, buffet yi nga xam na self euh, service la woon maanaam doo duñ la tibbal wala dara maam dañuy pare rek teg dab yi nii ci fa mu nekk jël benn sario boo xam ne ay euh, palaat lay kii ku nekk yaay jël dem fekk lekk gi lu la neex démb rek bi may kii maa ngi fa añee domodaa domodaa yàpp boo xam ne moom daanaka ndawal gi sooy gi mu sooy turé <laughs> turé moo tax dawaa <laughs> day nga day naar tarkal daal sëñ Moustapha daal yàlla na fi yàgg mais man na damay gan gu gu tërëg di nag ma gisoon lu lu kii noon noonu <laughs> daal tawarkal la ñu ngi koy ziar gën koo organiser moom ba pare ak surtout sax toilette di set di mu set savon boo xam ne bi ma ko sangoo ba pare damaa dëpp saabu bi di xool ban marque la te gisuma ci marque te saabu bi xam nga yoru ma njaam foofu bi ma bombee newaat nii sama yaram moom dama cee yëg seet goo xam ne sëñ safaa yàlla na fi yàgg te wér waaw loolu moom dama koy ñaanal al maktum di ñaax euh, doomam yi tamit ba ak ñi nga xam ne ñoo ci topp luñ jàng doyut boo doonee borom xam euh, sa bu dee borom xam-xam sa maam doon ko ngay gën a jàng ba pare nañu gëstu surtout mbattit mi dañu gëstu culture bi parce que seen maam loolu la leen rawee dafa leen a gën a xam Sénégal seen papa yi loo faw ñu boole ko ci dëgg la da nga jàng arab ba ne ar jàng tubaab waaye gis nga fii ci Afrique wala Sénégal boo ko xamul tamit problème lay doon surtout wolof bi nañ ko dañ ci góorgóorlu may déglu capitaine parfois sant baat yi buy wax wolof sant baat yi xam nga wolof surtout wolof yu ndakaaru ñëpp bii lañ koy sant santale maanaam naaj bi oto bi comme yooyu nga xam ne da ngay gis kuy wax fas sax naan fas bi war a wax waxtaan naan waxtaan bi <laughs> yooyu nañ ko corriger nañu dem ci saa wolof yi ñàkkut saa wolof yi ñàkkut ay musarsit wala buñ ci amut nañ jël ci Moustarchidine yi yóbbu leen wax fi ñu jàngee ñun à travers les WhatsApp no no no non non man non man non man aw ma jot man man man ab franc la maanaam ambassadeur la aw ma jàngale mais nañu dugg ci suñ kuréel bi mën nañ cee indi rek luy tolloo euh, cent personnes ñu jàng ñoom danañ demaat di jàngalewaat seen foofu parce que mbatit bi ak culture bi yooyu lañ dese gis naa ne Moustarchidine yi dañu am problème mu sant baat loolu laaya ni ñaax mais lu loolu moom gongo macha allah. waaw di eh, sant naa sëñ Moustapha si ba noppi it waaye ki nga xam ne moom la sëñ Moustapha dene woon dene mooy invité muy Cheikh Bara Ndiaye di sama nit di ku nit ku baax dama koy woo di ko yaakaar na sax day gàmm ndax man gàmm fii laa koy kii mu ne ma man day dama bëggoon a gàmm ji ci waawoon sëñ Moustapha daf ma invité daf ma dene ah bëggoon naa ñu ànd ma daal di nag jóg dal di ñëw ànd ak moom jaar kër ni jaayam sëñ xaarim loo gaydal foofu it tawarkaal la macha allah ndax sa nit rek mooy am ku ko fonk invité ko moom it mu fonk la jàpp ne war ngeen a ànd nga ànd ak moom di nit ku baax maa ngi koy ñaanal jàmm ak xewal gis naa fi ma teg te xam naa ko waaw te mayit ab ceddo la man ku ma jàpp ma jàpp la réew mi ñi ko fi gën néew nañ lool moom seex baara moom na ko nit ñi bàyyi xel te ku woyof la te loolu moo ma gën a neex ci moom nit bu woyofee ñi muy àndal yilif leen rek ba pare jàppe leen ni boppam maanaam nite googu Cheikh Bara kenn jotu ko ci am ànd ak nit doon seen kilifa ba pare def leen ni seen sa bopp man ci moom laa ko gisee humilité bi ci moom yéem na ma jaaxal na ma maa koy jaajëfal bu baax di jaajëfal mbay ah sëyeen bi ma àndaloon moom ak euh, am na benn benn silla silla moom bëgg lekk <laughs> mais nag foofu dafa doy waar de laa illa sëñ Moustapha si domodaay ceebu jaga yi <laughs> dëxin bopp laa ilaha illallah sëñ Moustapha day ah naa ne day tarkala yàlla may na ko de <laughs> ah ba bu day gàmmuwaat ngay de xam nga damaa doon ngan gu tere di nag loolu moo ci xaw xam naa bu ci boole woon nag ma jox ma soxnaas moustache si moom te ma ñëw ñëw gu gaaw gi waaw di nga jaajëfal baax